Sada si nag euh, membre la euh, ci directoire bu parti des libéraux démocrates euh, PLD ànd suqali mooy parti boobu nga xamante ni tey bu ñu suqali ànd suqali xel yëpp day dem ci parti boobu nga xam ne tey moom ci la Omar Sarr mi nekkoon PDS ak maître Amadou Sall ak Babacar Gaye Sada Sy dellu nañu am mbégte invité la fii ci réew mi FM ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa leen di nuyu Abdou Khadre mm, eh, maa ngi nuyu waa réew mi FM ñoom ñëpp eh, quatre vingt dix sept cinq eh, man la seen xarit responsable PLD ànd suqali bokk ci comité directoire bi jokk bokk ci directoire bu parti bi di tudd Sada si d' accord jërëjëf Sada si yow nga bokk ci parti bi nga xamante ni moom mooy parti des libéraux démocrates. muy parti boobu nga xamante ni tey euh, Omar Sarr moom mooy secrétaire général bi. Omar Sarr mooy président parti bi. Mhm. avec ñoom Babacar Gaye comme vice président comme maître Sall maître Bama Amadou Bama Ndiaye. Mhm. ak euh, Bakhaw Diongo am suñu benn jigéem tudd Pulmera bu nekk à l'extérieur. parti bi dafa mel ni euh, ñi nekkoon PDS rek dafa mel ni PDS bis wala. non non parti bi daanaka ñi ko jiite. Euh, am na ñi nga xamante ni PDS la ñu nekkoon am na ñi nga xamante ni mosuñu bokk PDS euh, daanaka parti bi dafa innové euh, dafa am ay libéraux yi nga xamante ni ñu bëree bokkuñu woon ci biir PDS instant yi ñu ngi ci biir parti bi aussi tamit ak yeneen Sénégalais yi mosul bokk ci benn parti ñu ngi ci biir ak ñu bokkoon yeneen parti tamit dafa rassembler ay parti yu bëri quoi regroupé ay parti yu bëri ci biir PLD ci jamono ji ñuy wax nii. mais est-ce que parti la boo xamante ni tey euh, au niveau national nekk na parti bu am représentativité euh, ci quarante cinq départements yi. ci quarante cinq départements yi yëpp parti bi am na fi ay répondants ay représentants yu doy. ñu ngi massifier toujours depuis bu ñu créé parti bi avant bu ñu koy créé bu ñu taxawalee euh, suqali ñu ngi créé parti bi mois de mu ngi am récépissé mois de septembre deux mille vingt depuis boobu ba léegi parti bi les responsables ñu ngi ci communes yi département yi yëpp ñu ngi liggéey di massifier parti bi parti bi moom jamono ju ñu toll ni euh, ñu bëri ñu ngi ci àll bi di ko liggéey pour massifier parti bi cinq département bi yëpp nag am na ay ay répondant euh, seen parti boobu lan mooy objectifu parti bi lan mooy seen bëgg-bëgg dañ ko créer rek pour ànd ak mouvance présidentielle nekk parti tele centre wala lan moo tax. non non euh, parti bi daanaka boo xoolee ñi koy jiite waxuma ci Sénégal ci Afrique yëpp euh, responsable yi jiite parti bi ñu parti bi yaakaar naa ni ñëpp xam nañ leen ci àddina bi ci politique ci Sénégal ci Afrique euh, personnalité ak responsabilité bu ñu am ci réew mi. Euh, Sénégal yëpp xam nañu ñi fépp fu ñu nekk jiite foofu foofu nekkul parti bi nga xama ne pour ay toppaanu lay doon wala ay yeneen ak yeneen parti boobu comme parti yëpp. Ah, ñu dañ ko gis dañ ko ko taxawal dem toppi Macky Sall. ah non taxawuloon ko pour toppi Macky Sall daanaka toppi Macky Sall bi. du toog wala da ngeen ko taxawaloon pour pour tas PDS pour yàq PDS. yooyu tamit taxuñoo jóg PDS euh, yàq ko taxuñoo jóg parce que foofu la ñu nekkoon di liggéey liggéey euh, suñu doole suñu temps suñu. Euh, am am yëpp ñu def ko foofu ci parti bi parti boobu foofu la ñu bokkoon amuñu benn yéen di ko yàq dem na nag ba ñàkk déggoo am ñu dàq kom Oumar ñu ñu ñu dégradé ñeneen ñi ñoom tamit gisatuñu seen bopp ci parti boobu ñu xam ni nekk foofu aussi tamit euh, di xuloo di xeex ak euh, ñi fa nekk jaru ko mën nañu kereel seen bopp seen parti ñu dem keree woo sénégalais yi ñu ànd ak ñoom. léegi parti bi euh, nga xamante ni tey moom mooy seen parti bi léegi ci mouvance présidentielle moom ngeen bokk. jamono wala da ngeen bëgg a seel seen bopp ci biir APR. non non ñun moom nekkuñu parti bu ñu créé pour mu seey parti bi mu ngi bokk nag ci mouvance présidentielle. day leer nañ nit moom boo àndee ak moom da am solidarité bu mat sëkk pour yaa ngi ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bu muy liggéey bi pour Sénégal jëm kanam politique bi tamit ngeen ànd loolee mën a déggoo ngeen ànd liggéey ànd ci liggéey boobu loolu moo tax ñu ànd bi moo am. mais nekku leen parti boo xamante ni daal euh, da ngeen ko créé noonu rek ah, xalaat ngeen sax bis ñëw ngeen am candidat. pour pour euh, jiite réew mi. waaw parti bi moom duñ ko créé comme parti yëpp. Euh, politique nag ay jamono la ay contexte yuy am la contexte bu euh, bu ñëw bu ne ñu xool toog xool jàngataat mbir moomu xool situation boobu nan la war a parti bi war a taxawee ñu après ñu xool parti bi bépp taxawaay bu mu war a taxaw yëpp ñun ñu waxtaan ci déggoo ci ñu demee noonu. d'accord mais Sada Sy euh, yéen ñi nga xam ne yéenay parti des libéro démocrates. Euh, te Omar Sarr nekk président bi maître amul sàll bokk ci Babacar Gueye bokk ci ak keneen ak keneen euh, ndax du ngeen rus bu ngeen toogeek waa APR ndax lu nekk dégg nañ ngeen wax ko Macky Sall. ah non jamono bu ñuy xeex du ñu assumer àddina booy ànd ak nit ki da ànd ak moom ànd bu mat sëkk jamono xeex xeex la jamono xuloo xuloo la jamono tamit ànd di liggéey ak juboo boobu tamit jamono la. mais est-ce la ngeen doon wax la ngeen doon wax euh, avant dafa nekkutoon lu ngeen gëmoon. bi ngeen dem Macky mënut bi ngeen dem Macky day jaay doole. lu ñu doon wax ñun toujours lépp lu ñu mës a xeex. ci ngëm-ngëm la ñuy demee ci xeex combat boobu. combat bi nag àddina nag ànd tey ñu juboo tey ñooy ñàkk juboo ëllëg ñu xuloo tey ëllëg ñoo ñooy ànd addina nag moo bindoo noonu waaye ñun lépp lu ñu doon ŋàññe duñ ko gëmoon. bu ñu Macky Sall léegi leen ko. non duñ ko gëm ba tey bu ñu demee nag ba Macky Sall woo ñu lépp lu ñu doon pour réew mi la woon pour ñu teg réew mi ci yoon pour ñu xeex li nga xamante ni pour ak démocratie gën a dëgër ba léegi tamit fu ñu nekk fii bokk nañu ci système bi nga xamante ni ci mouvance présidentielle lu ñu doon xeex jamono jooju mun nañ ko xeexaat ci jamono ji parce que suñu leader yi ñu ngi waxtaan ak président de la république Macky Sall ñu ngi ànd ak moom ci gouvernement bi di liggéey am nañu xalaat am nañu ay gis-gis yi nga xamante ni mooy dooleel ak i démocratie ci réew mi ak développement yi nga xamante ni moo nekk ci biir réew mi loolu ko c'est mooy suñu combat bu ñu doon xeex lépp luñu doon xeex démb ak tey yëpp pour réew mi jëm kanam la. position kese la ñu amoon ci xeex combat doon xeex bu yàgg. d'accord léegi jërëjëf euh, saada si mbokk yi euh, moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi moom membre la euh, ci parti des libéraux démocrates Sada ndax tey président Macky Sall jox na leen cër. Euh, yéen waa parti bi. waaw président Macky Sall moom jeex nañu jox cër bi nga xamante ni bu waxtaanee ak euh, Oumar Sarr ci depuis ci dialogue ba ba mu dugal ko ci gouvernement bi ba mu indi ay xalaatam PLD di xalaat di waxtaan ak Oumar toujours lépp luy doxal doxalinu réew mi dugal ci suñu loxo jox cër weesuwul loolu. kon daal jàpp ngeen ne jox na leen cër. jox nañu cër bu mat sëkk. d'accord euh, bu paasee euh, bu paasee Omar Sarr mi mu def ministre euh, ñu baree bari jàpp ne Omar Sarr nan lay toogee ci conseil des ministres siggi xool ñi nga xam ne ñoom la doon jàmmarloo keneen ku bokk ci parti bi ku ñu jox ndomba tànk. non non xam nga ñun dugguñu ci parti bi pour ay ndombal tànk am na ay principe yu parti bi déggoo ak président Macky pour liggéeyal réew mi. du question ndombal tànk kese nit mun na nekk ci mouvance présidentielle fekk yoroo benn ndombal tànk fekk yaa ngi waxtaan ak président ngay indi sa xalaat ngay indi sa xam-xam sa expérience ñu koy dollu ngir réew mi loolu mooy suñu taxawaay waaye du question ndombal tànk kese te yaakaar naa ni comme ñu ngi ànd ak moom du ñuy liggéey ak moom Oumar Sarr bu fa nekkee rek ñeneen ñëpp ñu ngi foofu. d'accord kenn ci ñun fu mu nekk rek jàppal ni ñëpp a ngi foofu. parce que euh, suñu xalaat yëpp lañuy ñuy boole jox kooku. Euh, jërëjëf euh, saada si léegi ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy actualité. démb ci àjuma ji dafa am ñaari projet de loi yoo xamante ni doon nañu si indi ay modification jëm ci wàllum euh, code pénal ak euh, code de procédure pénale lépp jëm ci xeex li nga xam ne moo soxal wàllum terrorisme ak euh, financement terrorisme projet de loi boobu ñu voté ko démb ci assemblée national coow li bëri woon na si lool opposition bi wax nañu si ak ñenn ci société civile bi yow lan moo ci sa xalaat. waaw coowal politique moom. ay homme politique ay politiciens fu ñu dajee moom coowal politique ay kujje day am loolu moom mënta ñàkk même bu ñuy voté budget bu ñuy tabaxee tali wala bu ñuy def courant wala bu ñuy defee ay ndox ci biir réew mi di tabax ay université budget boobu sax buñ koy voté euh, kujje bi day bañ toujours loolu moom yaakaar naa ne képp kuy politique ay coowal lii moom coowal yu ndaw yi moom walu la yëngal quoi parce que ci politique lañu ñu nekk surtout nag Euh, suñu jamono ji ñu toll ni yaa yaakaar naa ni gis lu président di liggéey loolu kujje bi du ci teg bëtam daal loolu moom euh, fu mu mënti loolu moom yëngaluñu daal loolu moom yëngaluñu moom. mais mais loi la yoo xam ne ñenn ci société civile bi jàpp nañ ne euh, loi la boo xam ne dafay deltuloo ginnaaw suñu démocratie ba pare salfaaña li nga xam ne mooy àq ak yelleefu askan wi seeni liberté. waaw loolu tamit pour ñu mën ko wax askan wi il faut que ñu leeralal askan wi ñoom ci seen bopp ñu jàpp ni loi bi loi antidémocratie loolu pour ñu jàpp il faut que ñu wax askan wi lan la xam nga taxaw rek di wax da ngay salfaañee euh, ak démocratie da ngay def li ak lii fekk yooyu yëpp ay wax nga tekk ci ay wax kese fekk amul benn leeral bu nga leeralal askan wi loi bi lan lay dox ñoom ñoo gën a xam loi bi lu muy dox loi bi lu muy dox Sénégalais yëpp ci ànd parce que euh, pour dooleel affaire terrorisme ñëpp xam nañu ci àddina bi surtout Afrique surtout na suñu frontière bi fu mu toll il faut que lépp luy dëgëral nag kaaraange réew mi Sénégalais yëpp ci ànd Sénégal lu gars yi di wax ay affaire de droit de marche loi boobu dara soppeeku wu ci ni nit ñi doon demee marche depuis jamono bu ñu joxee euh, depuis bu ñu dugalee marche bi ci affaire constitution depuis boobu ba léegi lu dul lu ci yokk dara soppeeku wu ci lii nag pour aar askan wi ak seen alal ak bien public Sénégal nag toll na fi nga xamante ni mëntuñoo bàyyi ay nit jóge fu leen neex ci àddina bi ñu indi leen ci biir réew wala ñu nekk ci biir réew mi bu ñu amee lu leen naqar di manifester dem di taali ay këru jàmbur dem di taali ay alalu jàmbur ay station d'essence dem di dajji ay magasin seen ay nawle sénégalais te dara du leen ci fek loolu moo tax loi il faut que ñu gën ko dëgëralaat sinon buñ ko defulee Sénégal dina dem fu gën a pire que fi ñu koy xaaree parce que munoo jël ay manifestant dem ci ay euh, brigade de gendarmerie taal brigade ba dàq gendarme gi jël arme bi yóbbu ñu ne dara du leen ci fekk. nit ñi yore ay arm nekk ci ay bërëbu jàngukaay di rayante guddi ak bëccëg ñu ne dara du leen ci fekk ay nit nekk ci ay université eh, di defante lu ne ñu dara du leen ci fekk politiciens yi il faut que ñu génn ci yenn cadre yi ñu génn ci wax bu ñuy wax bi ci affaire armée yi arme nationale lu général bu ñu nomee di influencer nit ñi ci yeneen di di manipuler loolu il faut que loolu mu dakk sinon Sénégal dana gën a pire que liñ koy xaaree ci sous région bi. mais mais mais mais si Sy euh, li nga xamante ni tey moom mooy par exemple université coow yàgg na faa am étudiants yi yàgg nañoo jàppante léegi bu ñu jàppante ba gaañante ngeen bëgg a wax loolu acte euh, terrorisme la. non loolu waxuma am nga acte terrorisme euh, lu koy définir dafa bëri. nit ki li la inculpé ak li nga xamante ni loolu la ñuy fekk moo nekk ci biir du benn acte terrorisme terrorisme terrorisme rek lépp luy terroriser nit ci acte terrorisme la bokk loolu euh, ñi gëstu ci affaire droit ñoom ñëpp xool nañu ni lii état bi teg dafa war a am parce que sinon investisseurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci àddina bi bàyyi xel Sénégal ak jàmm ji fi am bu ñu commencé gis menace leader bu ne mu ngi woote menace da génn taal. dañuy génn yàq non taal non résistance la leader yi opposition bi wax. non nga résistance résistance kenn terewu ko kenn. Mhm. gis nga li fi li fi jaar li fi jote jàll gis nga ko yàqu-yàqu bu fi am gis nga ko ay bakkan yi ci gis nga ko nit bu dee rek jàmm kese moo la tax a jóg bu état bi génnee loi loi buy wax ni képp ku taal këru jàmbur. yoon bu diis dina tegu ci sa kaw ndodd boo tiitee rek am na loo nam ma def lu dul génn manifeste kese. mais est-ce que manifestation yi fi nekkoon yi fi jaaroon moo leen tiital ndax boobu manifestation yi jàllee gis nañu ay ministres yu yëkkati euh, ay kàddu wax ne ñi doon manifester am na si ñoo xam ne ay terroristes lañ mu nekk kàdd goo xam ne kàdd gu diis la. manifester ñu bëgg la wax na la terroriste nga. taal bus ñu bëgg la wax na la terroriste nga. am nga terrorisme moo jiitu manifestation bi. loi terrorisme terrorisme bu ñu koy voté en deux mille seize moo jiitu euh, manifestation yi daanaka nag addina nag boo ci nekkee toujours dangay am ay jàngat yu bees loo gën nga amélioré ngay wàññi lii nga yokk lii xam naa ne état bi ci loolu kese la nekk waaye du question lii kese kese kese moo tax état bi jóg parce que bu doon loolu am na ay loi yi fi ne mën na gérer loolu loi yooyu mu ngi fi ba tey dara dañu ci léegi nag affaire terrorisme bi ñëpp ñoom ñu yore état bi ñoo xam la fan la danger bi fan la danger bi nekk renseignements généraux yi information yi ñuy joxe yi ñoom ñoo gën a mën a joxe information yu fiable ñoo xam lu xew ci dëkk bi xaw xam lu xew ci sous région bi lépp lu ñuy def daañu waxtaan ak ñoom ba créer yenn loi yi nga xamante ne daañu mën a aar ci problème yooyu dina la ñëw ñu anticiper ko ñu aar suñu bopp loolu kese moo nekk ci loi bi. mais amul lu ci nekk pour faagaagal euh, ay adversaire wala mu viser ay nit. mu am na ñu mu viser ñu mu viser mooy ñi nga xamante ne duñoo jóg ngir terroriser askan bi képp ku jóg pour terroriser Sénégalais Sénégalais yi loi bi mu sa kaw képp ku jóg pour faagaagal koom-koom réew mi loi bi mu ngi sa kaw. loolu nag sénégal yëpp ci ànd war ànd. da ngay sénégal yi war nañoo wàcc manifester war nañoo résister ndax ñu bari jàpp nañ ne Macky Sall dafa bëgg def ñetteelu mandat moo bëgg moo tax mu bëgg a terroriser yi ndax euh, nit ñi dem bay ragal a woote résistance. non non xam nga résistance kenn terewul yooyu yooyu ci constitution bi la nekk droit de marche mu ngi ci constitution bi mosuñu tere benn leader mosuñu tere leader dem télé wala rajo wax. ñu fekk leader fu mu nekk ci rajo bi ak télé wala euh, ci réseaux sociaux ñu fekk la sa biir kër nii la ciik yóbbu la ngir wax sa xalaat démocratie boobu li yi di wax yooyu am na fi politiciens yi yenn saa yi am naa yenn leader yi du ñu nekk di manipuler amul benn leader bu ñu tere génn sa kër ñëpp a ngi dox seen soxla di wax seen bëgg-bëgg di wax seen seen gis-gis ci biir réew mi dara fekku leen ci léegi nag lenn rek mooy problème bi affaire tourisme moom. loi boobu duñ ko war a dëgëral képp ku am yéene taxaw pour paagaagal koom-koomu réew ak euh, jël bakkanu Sénégalais yi loi bu dis dafa war a ñëw taxaw sa kanam ay Sénégalais yi créé seen ay magasin di daan seen ay doole ay nit jóge fale ñu ne dañuy xeex liberté ak démocratie romb sa ay magasin dajji ko jël li fa nekk ñu dem seen yoon dara du leen ci fekk yooyu loi yooyu pour yooyu la ak yeneen ak yeneen li nga xamante ne affaire terrorisme daal dafa yaatu yéen ñi journaliste yéen a dara war a saytu génne waaye expliqué nit moom dafa yaatu. li ci bokk dafa bëri. Mhm. d' accord euh, euh, Sada euh, noonu nga xamante ni tey yow moom nga jàngate euh, projet de loi bi wuute na ak opposition bi ñoom niñ ko gisee wuute na tamit ak euh, société civile bi niñ ko gisee mais parax paraxee gi lan moo ko fi jar yàkkamti gi. non xam nga parax paraxe moom man gisuma ko fi parce que toujours moom ay euh, bu urgence amee rek bu urgence nag ñaar la ci li ñu jublu pour def ko wala li ñu war a def procédure bu ñu war a jaar temps bi bu passé da ngay toogaat ba assemblée ubbiwaat nga xam ne loolu am na nga def loi d'urgence après pour assemblée voté ko loolu moom ci règlement intérieur assemblée la nekk loolu moom yoon la ñuy tegu. d' accord démb euh, gis nañ si ñoo xamante ni tey doon nañu amal euh, ay manifestation waaye tamit ci assemblée national gis nañ fa xuloo ak xeexoo ak saagante loolu euh, lan moo ci sa xalaat ci comportement boobu nga xam ne yenn ci député yi amee nañu ko. waaw loolu moom ay nit assemblée ay nit a fay nekk rek ay jikko yi ngay jëlee sa biir kër rek loolu ngay demee assemblée nationale. loolu moom mënta ñàkk assemblée nationale tant muy continuer di am xulo ak euh, yooyu day am assemblée toujours l'essentiel rek. yow da ngay rafetlu la fa am kon. saagante be xuloo be xeexoo bi. kilifa yi di leen di seetaan xale yi di leen di seetaan. mu musuma ko rafetlu waaye dafa am li nga xamante ni bu ñu naxante suñu bopp dafa am li nga xamante ne réalité la kenn mënu ko dindi ci addina ay kujje fu mu nekk il faut mu am ay xuloo ak ay yooyu du mën a mën a ñàkk l'essentiel daal la ñuy gën a delloo seen xel euh, di xam ne askan wi ñu ngi leen di bàyyi xel euh, ñu xam ne askan wi lañ fa toogal ñu jombal seen bopp def yu bëri waaye li fa mën a am tamit ñu xam ne lii amoon na jàll na jàll na ñu delluwaat nekkaat benn ñu xam ne politique du ay noonante du ay leneen ay leneen. ay ah. gis yu wuute kese la. waaw mais gis nañ euh, benn député boo xamante ni euh, ci mouvance présidentielle la bokk Aline Dumbru Sow muy menacé Toussaint Manga ba naan ko boo génnee ma génn boo génnee ci assemblée bi euh, jaasi laal kàddu yu mel noonu tey te yéen ngeen ne loi boo xam ne dafay xeex mbirum terrorisme loolu tey nan ko koy tuddee. taxaw di mm-hmm. menacé nit na ko dama lay génneel jaasi. ni ñu koy tuddee. Mm-hmm. fu ñu li ñuy wax kenn rek la wax ñëpp. ñun ànduñu fi benn menace ak fu mu mën a jóge nag ànduñu ak nga nekk ci opposition nga nekk ci pouvoir ak moo ci yem bépp menace bi nga xamante ni day jëm ci askan wi ak fu mu mën a jóge ñun ñu ngi koy ñaawlu ak ku mu doon tamit. d'accord jërëjëf saada si mbokk yi tey moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM. Euh, muy am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures ngeen di si ànd ak Abdou moom Sada si nag euh, membre la euh, ci directoire parti des libéro démocrates mooy parti boobu nga xam ne tey président Omar Sarr moom moo ko jiite léegi ginnaaw bi ñu waxee ci li nga xam ne moo xew assemblée national ni ki démb saada si fan yi tamit li nga xam ne mooy coowul nervi yi daan nay daan nay daan nay jóg ñu gis ne ñu bari ci société civile bi ak opposition bi ñoo ngi tu tuumaal mouvance présidentielle Sall ka ne Macky Sall bi mu def tournée yi ay nervi ñoo ko topp euh, loolu yow lan moo ci sa xalaat ak lan moo ci sa gis-gis. man Macky Sall bu muy dem tournée am na fi nga xamante ni man jot naa fa dem euh, am naa ci gis-gis bi gars yi di wax ci ay nervi te aussi tamit il faut que ñu xamal Sénégal yi lan mooy nervi nervi mooy képp ku ànd ak pouvoir. wala nervi mooy ki nga xamante ni am na melukaay am na melo bu muy melo ak fépp fu mu mën a féete parce que gis naa euh, gis naa Fuuta bu Bougane Gueye ñëwee Oréfondé gis naa ay bu dee ñooñu la ñuy woowee nervi topp ay xale dàqante ak ñoom di leen jàpp di leen dóor ba léegi gisuma benn média di ci wax loolu moom gisuma ko waaye il faut que sénégal yi xam ne leader politique yi ñoom ñëpp am ay sécurité yu ànd ak ñoom comme gouvernement bi dafa doon déplacé wu dem beneen région responsable bu ne bu fa ñëw ci politique lañu ne ku nekk dina indi sécurité am ministre yëpp fa daje ku nekk dina am sécurité bu mu àndal am naa ñooñu fu ñu daje fu nekk rek duñu bëri man loolu laa jàppee bëri waaye mais mais Sada Sy dañu gis ñoo xam ne ci cortège président Macky Sall lañ nekk Mhm. cortège président Macky Sall te ñu jàpp ne moom tey euh, force de l'ordre yi war na ko mën a sécuri euh, war na ko mën a sécuriser police ak gendarmerie anañu ba président Macky Sall bëgg ànd ak ñoo xam ne ay yat la ñu yor nekk ay civil comme man comme yow. waaw léegi man gis ma ay yat man gis naa ay ay sécurité bu mooy mas a di àndal depuis avant mooy falu ba tey nii. ñu ngi ànd ak ñoom. mais mais bokku ak ba muy faloo léegi dañ ko jox police jox ko gendarmerie jox ko armée bi na ko président ngir sa kaaraange lan moo tax muy dem di jëli civil. wala ñooñu li ñuy def police daf ko mënul gendre gendarmerie saada si. Sénégalais yi ñoo ñuy déglu. ñun xam nañu parti bi fi ma sa nekk président euh, bu fi ma sa falu am nga sa ay sécurité bopp. loolu da ngay jógee ak ñoom balaa ngay falu ba nga falu nga continuer di ànd ak ñoom ñun dañu lu ñu war a ñaawlu lu question diw am na sécurité bu ànd ak moom lu ñu war a ñaawlu rek mooy violence buy am bi fu mu mën a jógee ñu Sénégal yëpp ànd ñaawlu ko. kon kon kon ñaawlu nga violence bi ñi nervi yi ànd ak Macky def kon ñaawlu nga violence boobu. jàpp ay nit Fuuta Fuuta tampi di leen di dóor. non non man dama dama ni bépp violence bu am ak fu mu mënta jógee man duma ko rafetlu. mais ndax gis nga ne violence am na ci cortège su président ñoo ñuy woowee nervi ah man ma nekkoon ci cortège bi laa nekkoon gis naa tamit ay xeex gis naa ay nit tamit aussi bàyyi seen ay parti sol ay ti shirt ñu tuddee leen Fouta Tampi fekk ñoom ci parti politique la ñu bokk comprendre nga nëbb seen mandarga parti pour dem yàq ay ndajewu ay nit bu fekkee takk brassard rouge kese nga yore sa banderole taxaw président romb la nga wax sa li la wala li ngay ñaxtu loolu amul benn sénégalais bu koy bañ man loolu dama ci rafetlu dama koy rafetlu dama ci ànd li ma sa nawle kere bësam mu am bësam di teeru ganam nga waree bokk ñëw indi li la naqar nga wane ko waaye yemoo ca nga dem bëgg tas ndaje bi bëgg yàq bësam loolu ak ku mu mënti doon dana am ay jàppante mënta ñàkk ci jàppante tant que nit am na ñu jóge fële ñëw bëgg yàq bësu nit ñooñu daañu riposter pour jàmmaarlu ak ñoom loolu moom nañ ko wax te dee rek. d' accord léegi euh, fan yi ñu génn euh, dama liir ci benn journal ku si mel ni Alioune Tine nee na Sénégal fi mu jëm baaxul Sénégal ma ngi ci danger ak nervi yi te ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom ñoom tim nee nañu euh, ku leen dóor ñu fayu euh, jamono ji euh, tension bi ci wàllum politique saada euh, lan nga jàpp ne moom mooy tax dal am. lan moo tax dal am ku nekk delloo sa xalaat ci sa bopp. nga xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu fi jot am ñu ñëpp ko yëgandoo dëkk bi lépp lu ci jot yàqu ñu ñëpp lay yàqul boo nekkee leader tamit bëgg jiite réew ëllëg dafa am benn ton bi nga yor dafa dangay war a woote jàmm nga xam ne jàmm moo fi mën a nekk ñëpp mën ci njëriñoo ci biir réew mi ci réew mi waaye bu fekkee eh, ku nekk eh, leader politique boo gis muy woote nga gis muy woote nañu génn nañu jàkkaarloo ak nit ñi nañu dóor nañ taal loolu ñoom tamit war nañu xoolaat seen bopp nit ñi bu ñu delluwaatee seen xel rek ñu xam ne ab pal yàlla moo koy joxe dangay am doxalin booy def rek boo xoolee li lay fal ak eh, ñi lay wër dangay xam ne du yow yaa fal sa bopp yàlla moo lay fal loolu tant que leader xamu ko rek dangay nekk di yaakaar ne lépp ci doole nga ko mën amee wala sa ay pexe mun nga def say pexe nag wala yàlla yàlla que pexe mu sottiwul sa pexe du jeex. Euh, mais euh, li nga wax ni euh, Sada si Ousmane Sonko ngay gaaruwaale ndax yéen da ngeen a jàpp ni nitu fitna la ñenn si yéen dañoo jàpp ne Ousmane Sonko nitu fitna la dañ koy xas ci lu mel noonu naan day wax ne résistance wàcc leen ci mbedd mi xeex leen dóor leen. no man du ma jaar si turu kenn. waaye boo waxee nit ñi ñooy xool kàddu bi ci mu gën a jege ñu laawaale ko ci. lan moo tax doo jaar si turam. non du jaar si tur débat bi nekkul débat bi nga xamante ni ñun PLD duñu nekk parti bi nga xamante du ñoo bëgg euh, nekk parti euh, référence yi nga xamante ni bëgguñu dugg ci yenn détails yu bëri euh, Sénégalais yi boo tuddee dara ñoom ñooy apprécier sa wax ñooy xool fan la ñuy qualifier kaddu gi ñu xool lan la ñuy gis sa kaddu ñu xool kan lañ koy adressé man débat boobu laa gën bëgg ka tudd tur bëgguma tur tudd tur kenn waaye ñëpp xam nañu am na ay leaders yi fi jóg fitna moo leen tax a jóg Sénégal yëpp xam nañu fitna moo leen tax a jóg musuñu woote woote jàmm suñu woote rek nañu génnee nañu génn ci mbedd bi nañu jàmbaarloo nañu durante nañu def dara am na ay koom-koom yu nekk ci biir réew mi kenn leader yi au lieu ñu woo jeunes yi ci nañu dem ñu former leen ci xam-xam nañu dem jàng nañu dem déedéet dugguñu ci loolu lépp lu yàq njàngum xale yi ci la ñu nekk di boole xale yi pour ñu xeex di boole militants yi pour ñu doorante yooyu dafa war a jeex ci réew mi loolu amul solo. il faut mais yéen dañ leen di ki ngeen àndal muy président Macky Sall ka day day jaay doole euh, di yàq démocratie bi di yàq ak yelleefu askan wi te néewal doole ñi nga xam ne ñooy opposition bi rawatina képp koo xam ne jàpp na ne euh, candidat bu sérieux nga mu dal si sa kaw comme ni nga xam ne ñeneen ñi tuumal nañ ko ko ci kaawu Karim Wade kaawu Khalifa Sall ba ci Ousmane sonk mi nga xam ne ñeneen ñi jàpp nañu daf ko bëggoon a faagaagal est-ce que jaay doole googu ñuy tuumal Macky Sall du du looy euh, du liy tax euh, mbir mi toll fii tension bi. tension bi lu ko toll fii lenn la. tension bi tuumaal nañu comme ni nga ko waxee tuumaal nañu Ousmane Sonko. tuuma buñ ko tuuma bi ba léegi yoon waxugu ci dara ñu ngi xaar yoon mu def yoonam Sénégalais yi loolu la xaar ñun yàkkamti nañu aussi képp bépp tuuma bu jóge ci leader bi nga xamante ni war la falu ci biir réew mi war nañ ko yóbbu ci yoon ñu leeral bu dee moom la yoon dal ci kawam bu dul moom i tamit aussi ñu xam ne tuuma la woon mënta ñàkk ci àddina ñëpp euh, ku képp ku dund ci kaw kaw suuf tuuma dina mas teg ci sa kaw waaye moom moom tuuma bi nga ko tuumaal bi depuis bi nga ko daal moom wootewul lenn lu dul na na dëkk bi tàkk loolu kese comme que tuumaal nañ ko rek na dëkk bi tàkk. kan Ousmane Sonko dafa woote pour taal dëkk bi. Eh, yéen a ko déglu guddeeg bëccëg. ko mais mais mais moom complot la ko jàppee complot. complot complot dem ci euh, ay salon te mënul compléter nit ki ci loolu nit ki daal bu defee bànneexu boppam ba pare na assumé mu nekk naan mu xam ne lii man maa ko def li ma li ma ci góobee gar ko. yow ban taxawaay nga jàpp ne moom la waroon amee. man taxawaay bu ma jàpp ne moom la waroon amee tuumaal nañ ko nit la yoon am na fi mu def ndànk dem setali ji bu dee dara takkul ci moom taxawaay boobu kese mooy taxawaayu kilifa képp ku la wax leneen waxu la beneen taxawaay kilifa bu ñu la tuumaalee dara waroo sax xaar ba tuumaal bi di law ci àddina yooyu ya wara a njëkk a jóg taxaw wax man de maa ngi sol sama dàll dem setali ji sama bopp ba pare boo setalee sa bopp ba pare nag nga génn def conférence de presse nga xamal nit ñi tuumaaloon nañ ma lii ak lii ak lii dem naa setal naa sama bo sama der lii ak lii ak lii bu dee complot la nag nga door wax na nit ñi nag lii complot la ñii ak ñii ñoo ko defoon waaye leeraloo yow lu ñu la tuumaal yow nga bëgg nit ñi nañu jàpp ni yow tamit ngay tuumaalaate ñeneen nga wax nit ñi gëm leen li may wax ñii lii la ñoo ko def waaye man luñ ma wax lii bu leen ko gëm jamais. d'accord mais euh, Sada Sy euh, gis nañ ne manifestation yi fi amoon kilifa diine yi. dañoo woote woon euh, ak dal opposition bi manifestation yeeg rassemblement yi ñu doon def yëpp dañ ko tegoon ci suuf mais mouvance présidentielle ñenn si ñoom dañoo gis na ñoo ngi continuer woon doon dem ci télé yeeg rajo yi euh, doon wax wax ju ñaaw euh, ki nga xamante ni tey moom mooy Ousmane Sonko ñi mu àndal beneen bi président Macky Sall moom tam ñu gis ko ci ay déclaration yoo xam ne ma ngi def ay menaces naan li fi xewoon dootu fi amati te képp ku ko defati yoon dina dal sa kaw menaces yooyu noonu est-ce que loolu sax moo tax opposition bi jógaat commencé waat ay manifestation ak i rassemblement. léegi laaj na li fi xewoon bëgg nga mu xewaat fi. non li xewoon kenn bëggul mu xewaat fi. waaw léegi Sénégal yi euh, Sénégal yi yëpp nag président de la république moo moo yore bu fekkee am na lu fi xew ba ñëpp jàpp ba ñëpp jàpp ne li fi xew jaarul yoon du yoon xew na fi ba pare nag génn nañ ci ak fitna ak jàmm salaam loolu président nag war na jël beneen motukaay bi nga xamante ni loolu waru fi xewaat. ak mu mënti demee nag loolu moom dafa war a. xam nga ay dañ da ngeen ñoo bettoon ak yenn ci ay leader di ko wax da ngeen ñoo betoon président Macky Sall di menacé waat loolu kàddu yooyu est ce que mënutoon ñàkk. loolu jàppewuma ko ay menacé waat parce que loolu moo warul am lu fi amoon sax moo warul woon am bay am bay amaat buñ la arto loolu du menace loolu moom da nga war a delloo si sa xel nga xam ne lii nga defoon kat jàll na de waaye. waruma ko woon def waaye ki war a yore kaaraange bi nag taxaw na tem mu ne lii du fi amaat nga xool nag position booy taxawee nag. wut jàmm d' accord jërëjëf euh, Sada Sy euh, ñu daal di wax ci li nga xamante ni tey euh, moom mooy tournée économique yi président Macky Sall doon def ay bés yi ñu génn maa ngi waajaat yeneen yeneen tournée yeneen tournée économique gis nañ sax jaar na ci seen localité boobu nga xamante ni tey moom mooy daggana ñu gis mm. Omar Sarr def def ay mobilisation di tertu président Macky Sall yéen mm. neew nan nga gisee tournée économique yooyu nga xam ne ñenn ñi sax dañoo jàpp ne campagne déguisée la Macky Sall commencé campagne lan ci sa xalaat waaw politique moom loo def dina am ni nga jàppee loolu am ni jàppee leneen waaye ñi nga xamante ni fu président ñëw inauguré euh, seen ay euh, seen ay réalisation ñooñu duñu jàppee noonu ak fu président di dem def pose une di tabaxal nit ñi ay université di defal nit ñi ay route bitumée di créer di defal ay aéroport ñooñu jàppewuñu tournée boobu tournée campagne déguisée la ki toog Dakar nag wala toog sa salon ak foo mënti nekk àndoo ak président ci li muy doxal lépp lu mu mën a def yow da ngay jàppee rek yow politique la nekk loolu mënta ñàkk politique. mais xam nga tey Sada si ak fi Sénégal toll ak jafe-jafe Sénégal am ak coronavirus bi président Macky Sall mënoon naa dem inauguré mënoon naa dem euh, teg euh, pose première pierre. mënoon naa dem tamit jege ñi nga xam ne ñoo askanam mais mboboor mi nga xamante ni ñoo ko topp mboboor gouvernement bi yëpp topp ko euh, carburant bi ñuy lakk hôtel yi ñuy luye euh, xaalis boobu noonu ndax mënutoon ñàkk ñenn ñu jàpp ne folklore bee bëri woon. Euh, xam nga président de la république bu doon rek day dem def benn fan dellu si xam nga mboboor bi du ko topp président fépp fu mu déplacé wu war fa def une semaine war fa def conseil des ministres war fa def ay. Euh, yeneen réunion économique ci biir gox googu ministre yooyu war nañu dem parce que président fu muy dem ministre yi du ñu déplacé jël note lépp luy président di wax dafay engagé seen ministère yi loolu moo tax président fu muy dem war fa def ay quelques jours il faut ministre yëpp dem lu président jël comme ay engagement pour def ko def fa loolu ministre yi nga xam ne ñoom la concerné ñoom ñëpp ay pris note pour ñooyu ñu xool nan la ñuy réaliser lii président tamit dafa war a def tournée économique boo jëlee ay budget ñu dénk la réew war nga dem ci biir réew mi ay saytu ngay xool ngay nemmeeku nit ñi ma lu tax nit ñi di jàpp ni kaw waa kaw-kaw gi président de la république ak ministre waru fa dem loolu dafa sax c'est honte war nañu jàpp Sénégal yi nekk fu ñu gën a fu ñu gën a sore ci addina bi président war na fa dem politiciens yi daal jàpp nañu ni bu ñuy wut war nañu mën déplacer dem xooli ji nit ñi ci kaw ki ak fépp réew mi waaye bu ñu xasee ba falu waratuñu am na ñaari Sénégal sénégalais bii moom euh, président waratu fa demati loolu dafa war a dakk Sénégal ñëpp a ko yem ñëpp ci yem région bu bu président de la république dem moom a gouvernement bi lépp luñ fay consommer ci Sénégal lañ ko consommer hôtel bu ñu mën a jël foofu ay sénégalais moom la ñuy fay ñoom ñoom moom hôtel yi. Euh, euh, opération yu fa mas a am yu fay am ay location oto yeeg ak dund bu fay am yëpp ay sénégalais yi ñoo koy njëriñoo du ñeneen comme bu fi nekkee rek wala mu nekk feneen ndi ñooñu di njëriñoo rek bu demee feneen ci biir réew mi ñoo ñooñu tamit loolu la ñuy njëriñoo te aussi loolu dafa baax ci ab réew président di déplacé wu di gis loolu dafa baax nit ñi wax ñii di ñaxtu ñaxtu mu gis mu dégg ñii wane seen ay pancarte mo xool la mooy seen jafe-jafe mu wax ak ñoom de déplacé wu man loolu moom dema ci ma a ànd président de la république di dem ci yeneen gox yi bi xamal ñooñu kat kenn fàttewu leen ci biir réew mi ngeen bokk te lu mu am indi. mais euh, mais Sada Sy ñi nga xamante ni ñooy mobilisation yi nga xam ne tey euh, ñoo toppoon Macky sàll fu mu jaar askan wi dagg topp ko ñenn ñi dañoo jàpp ne ay nit lañ yoo xam ne dañu leen a neexal dañu leen a neexal xaalis waaye ànduñu ak Macky Sall euh, ci seen sago bopp. ah ñun de ñëw na ñëw na Dagana foofu laa gën a maîtriser ci ñëwam Dagana sax ci boppam bokkul ci tournée économique bi léegi Oumar Sarr xaritu makki Sall la ñëpp xam. Macky xaritu Macky Sall la léegi. bi mu ko dugalee ci gouvernement bi mais wuute na ak bi koy tëj di ko dugal ci kaso bi. da masa doon loolu. mais sa xarit Saada si ne yow noo koy dugalee sa kaso bi. waaye loolu yëpp day ci àddina. waaye xaritam la masa doon bu mu jaaree dagana pour feddale koleeram dugg dagana waa dagana ñoom ñëpp ñu génn manifester wane seen mbégte que seen ànd ñoom ñaar dagana ànd nañ ci loolu mooy doon manifestation bi du question ñoom keneen ak keneen jàpp nañu rek fépp fu Umar Sarr nekk ñoom ñu ngi foofu bu mu nekkee opposition tamit bu ànd ak ay nit wala mu ñëw moom kese waa dagana daañu génn wane que ñu ngi sa gannaaw yoon boo mën a jël gëm nañ la wóolu nañ la fépp foo mën a féete ñun ñu ngi sa ginnaaw parce que mosoo am bàyyi ju mosoo xam fàtte ñu. Euh, mais bu du Dagana goo keese tamit am na feneen fu président Macky Sall jaar euh, bi mu demee fi nga xamante ni tey moom mooy euh, moom mooy Fouta mbooloo moomu ñenn ñi jàpp ne topp gi ñu topp Macky Sall xaalis bu ñu leen xaalis bu leen neexal la. ndax Fouta gis nañ fi Fouta Tampeek jafe-jafe yi nga xamante ni tey wax nañu ko. non loolu ñoon ñu ko ñu gisee noonu tamit na nañu gisee noonu xam nga li may wax rek fuuta Tampi bi nga wax man il faut que ma xam Fouta Tampi ci ban organisation la ñu bokk. non ak kuréel la ay doomu Fouta lañ doomi Fouta yu mer. yoo xam ne gis nañ ne Macky Sall liggéeyul dara Fouta la mu leen diggoon euh, defu ci dara loolu moo tax ñoom ñu taxaw ne Fouta tempi Fouta dafa sonn. waaw non xam nga Fouta Tampi loolu slogan ay homme politique la ñun xam nañu lépp. duñu ay kuréel yi nga xamante ni duñoo toog nga xam ne ñi kuréel kuréel bii ñii ñoo ci nekk ñii ñoo koy diriger ak ban parti politique la ñu bokk boo ko defee léegi léegi nga xam Fouta Tampi ci ban parti la bokk. yow da nga yaakaar ne Fouta Tampi ci parti politique la bokk. ci politique la ñu bokk Sénégal Fouta waa Fouta yëpp xam nañu ci parti politique la ñu bokk léegi seen parti moo fa mënatul am dara léegi du ñëwee ci yeneen façon xam nga manifestation yi. dafa am ñu doon génn di manifester di génne seen ay mandarga parti di wane seen doole dem nañu ba xam ne loolu jàllatul léegi ci yeneen acte de violence dañuy ñëwee génnee yeneen façon di def puuta tampi bu yàggee daa gis fépp tampi ñu bind ko ñoom ñoo koy def ay parti politique la loolu moom boo duggee ci biir rek demal xool ñi fa nekk daa xam ne ñooñu ay militant wu parti politique lañu waaw Fouta Tampi moom ay militants. mais ñoom nee nañ nee nañ ñoom bokkuñu ci benn parti politique. loolu du ñu wax est-ce que ñoom seen wax jooju tamit doo ko nangul. man euh, dafa am ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi bokk ci parti politique waa waa Fouta waa Fouta xam nañ leen xam nga affaire yi aussi ay créer sa benn slogan rek taxaw ci télé bi di wax lii ak lii loolu dafa yomb boo booy revendiquer dara. da ngeen di taxaw def wax lu leer lii ak lii ak lii ak lii moo ñu tax a jóg lii ak lii la ñuy xeex waaye Fuuta Tampi kese ku ci tàllal micro nga wax ko détaillé ma li Fuuta Tampi lan ak lan la du la ko wax xamu ko Sénégal nag ñëpp mënuñu wax c'est bon dëkk bi dafa metti loolu ñëpp a ko xam addina bi moo demee noonu addina bi fu mu nekk ni dëkk bu taxaw di wax di gun damay gun damay euh, sama dëkk dafa neex loolu ay wax la dëkk bi yëpp dëkk yëpp addina bi yëpp dëkk boo dem am na ay jafe-jafe surtout nag Afrique bi ci Sénégal loolu moom xam nañ ko bu baax a baax loolu moo tax président de la république Macky Sall mu def ay jéego yu rëy dem ci région yi mu géem leen defal ay yenn infrastructure yu bëri pour ñu mën a développer seen ay gox loolu la parce que kenn mënutul am fenn léegi ci àddina bi lu dul fi nga bokk. d'accord jërëjëf euh, Sada Sy mbokk yi yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures euh, moom nag euh, ma ngi bokk ci parti des libéraux démocrates di responsable politique ci Dagana Sada si ñu wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal gis nañu xiiro gi ak ŋaayoo gi ci mouvance présidentielle ndax jàpp nga ne ak déggoo dina am ci seen biir ndax bëri na ci localité yoo xam ne ñu bari wax nañu ne candidat la ñu doon foofu waaye loolu mooy politique xiiroo ak maa ŋaayoo boobu bi ñuy wax bi loolu boo ko ci dindee rek politique amatul ay ay gis-gis yu wuute loolu mooy politique l'essentiel bi bu ñu demee ba fu ñu war a ànd ñoo xam ne fii war nañ fi ànd ñu déggoo fa bu demee ba jàpp ni fii mënuñu fa ànd waruñu ànd ñu ku nekk xool nu mu demee demalee boppam poste politique yi moom xiiroo ak ŋaayoo mooy politique boo ko ci dindee rek day jeex tàkk loolu moom mënta ñàkk. kon jàpp nga ne daal euh, mouvance présidentielle euh, xiroo ngaayo bi jàpp nga ne mënta ñàkk. mouvance yëpp la président président mouvance présidentielle ak opposition fépp foo dem dina am xaccoo loolu mooy politique léegi ku nekk maa la gën a mën a mobiliser maa la ëpp ay nit képp ku ko jàpp da ngay jàpp ni yaa war a jiitu boo leen demee nag ngeen dem di waxtaan. ba ngeen xam ne fii kat boo leen bëggee réussir seen combat il faut que ngeen doxalee nii ak nii. mais est-ce que yéen mouvance présidentielle ci Dagana est-ce que déggoo am na foofu. déggoo déggoo am na fa xam nga déggoo bi bu ñaari euh, leaders yi déggoo ci kaw rek ak APR xam nga Dagana mouvance présidentielle président Macky Sall dafa woo mouvance présidentielle convoqué leen pale ñu toog ñu waxtaan ak waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp Oumar Sarr teg ko ministre. en tant que ku bokk ci mouvance présidentielle. nañu waa APR ña fa nekk am nañuy ambition am na ñu fa am ay ambition politique. loolu la ambition. politique am na ñoo xam ne ànduñu mënta nekk même Macky Sall am na ñu àndut ak ci mënta mënta bi l'essentiel bu ñu demee ba bés bu ñu war a toog waxtaan ànd nekk benn bés boobu nañu toog xool li gën ci ñoom ñoom ñëpp xool bu ñu xoolee ñu xam ne lii yoon bii la ñu a mën a jël. pour ñu réussir suñu combat su boobaa ñu toog waxtaan ci ànd ji waaye ànd ñoom ñëpp moom mënta nekk. mais Omar Sarr ministre la tey bu président Macky Sall jëloon keneen ku bokk ci APR investir ko au niveau communal lan mooy nekk seen taxawaay yéen waa euh, mouvement euh, PLD. non xam nga yéen waa parti PLD nga baal ma. ñu ñëw parti PLD ñoom ñun moom tànn nañu ci euh, commencé par man. sama candidat élection bi di ñëw Oumar la choisir comme candidat Oumar mi ma choisir comme candidat nag ma doylu ko lépp lu mu def man maa ngi ci ginnaawam position bu mu mën a jël man maa ngi ci ginnaawam loolu la ñuy appliquer ñun amuñu leneen lu ñuy appliquer lu dul lu joxoñ fépp fu mu joxoñ ci politique fas nañu yéene topp ci ginnaawam te lépp soxla wuñ ci dara moom kese kot donc doy nañu fu mu mën a féete ñun ñëpp ñu nekk ci ginnaawam fu mu mën a féete ñun tam fay féete. lan moo waral lan moo waral loolu Sada Sy. daf ko daf ko daf ko jëfee daf ko wone Umar dafa li ñuy wax éveil citoyen dafa leeral xel yi ci suñu dëkk ci suñu gox ci suñu département mu gëmal doomu baykat mën na yegg fu ne mu dema mu gëmloo ni doomu baykat doomu sàmmkat mën na yegg fu ne bu dee ci xam-xam prouvé wu ko léegi bu muy jàng depuis bu muy jàng la la toll fi nga xamante ni kenn xalaatul woon ni yenn doomu baykat yi daañ fa mën a toll yenn doomu miskin yi daañ fa mën a toll mu gëmloo nit ñi xam-xam jeunesse bi yépp tey ñu ci gën a bëri roy ci moom ci côté xam-xam ñëpp nangu jàng parce que macha allah fu mu mas jaar ci xam-xam ñëpp xam nañu jaloore bu mu fa def. d'accord fu tamit ci ay poste ñëpp xam nañu jaloore bu fa def ba fi mu nekk nii ay jaloore yu rëy yu muy def ci ministère bu mu nekk bi mu ngi koy def. Sénégal yëpp teg bët. d'accord jërëjëf euh, Sada Sy euh, waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo. waaye maa ngi tàggoo euh, Sénégal. ñu fexe ñun ñëpp bu bës nekk benn jotee ñu ñëpp ñu toog waxtaan nekk benn bu xuloo jotee tamit mënta ñàkk ñu xam ne xuloo day am juboo day am waaye lu ci ëpp solo ñu woote jàmm ci biir réew mi jàmm bu amee ku mën a jiite daa fi fekk dara bu jàmm amul tamit ku fi mën a jiite daa fi fekk dara maa ngi gërëm di sant nag Oumar Sarr bi nga xamante ni moom mooy suñu président wu parti nekk ci gouvernement bi muy liggéey liggéey bu am solo nag di innover li nga xamante ni daanaka bëriwul fu muy am ministère am boo fa demee mu ngi liggéey liggéey bu am solo léegi amutul lenn na bëtuwul foofu lépp loo soxloo xam ci miinu Sénégal bu kere nañu ay site dangay dugg foofu nga xam lu fa nekk lépp contrat boo bëgg liir boo duggee ci site bi da koy da koy liir amutul leen lu ci nëbb loo bëgg am tamit c'est pas la peine ngay déplacer wu pays par ba fii da dugg ci site bi ñu wax la li ngay war déposé comme ay document koo bëggee am li fii ngay jaar koo bëggee am li lii la lépp loo soxla daal mu ngi ci biir leer na nañ daal maa ngi ñaan daal yeneen ministère yëpp def ni def ni moom. d' accord jërëjëf Sada ñu ngi lay sant di la gërëm. merci jërëjëf jërëjëf euh, euh, Sada Sy membre la euh, ci directoire parti des libéraux démocrates ànd suqali mooy parti boobu nga xam ne Omar Sarr moom mooy président bi kon mbokk ñu leen di sant bu baax di di gërëm lii moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jotaay jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.